sàkku wala ñu sàkku sama doom ta duma ci am pas pexé parce que duma am fuma ma dugg su leen démé bayima fi jaax la rek lay def la rek goot duma am fuma jëm parce que awma kër dugg depuis ci suba ma ngi la awma fuma dugg ba légui ma lay aduna heli wali jali so wana mo yeli dañata ko ñami so wana mo yeli dañata te yàlla rek tax ginnaaw dégg ngeen kàddu yi nga xamante ni maane yëkkati na ko yaayam yëkkati na ko kon nag maa ngi woo bonne volonté yi ci ndimbal ak yërmande te yàlla rek tax ngeen jàppale wuy juru wu daw ba sonn ngir doomam doomam ju bëgg a ngir teral yaayam ñu nar a fanaan tey ci mbedd ndakaaru njaay yi lu nekk mën leen cee fekk kon soxna si ñu ngi lay sant di la gërëm. di ñaan yàlla suñu boroom yal na yàlla soppi dundin bi bu ñu demee ba defar vidéo bi ba pare yal na yàlla suñu borom defal la mbooleem tawféex ak ngëneel ñu ngi lay sant day di la ñaanal yal na la yàlla aaral boppam yal na la yàlla aaral sa sa doom ji ba benn ñaawteef du du leen dal fii ci mbedd mi waa kay jërëjëf ñun ñoo ngi dem waaw jërëjëf. dimbali ma fanaan ak mën nañu fee fekk jàpp nañu. Baye As loolu loo ci xam Baye As kaay bul daw Baye As doo dem du ma la bàyyi. dimbale ma rek yaay sama solution père <laughs> yaay sama solution dimbale ma rek buñ la loo mënul dimbali ma rek bayaas waaw metti metti na lool metti na metti na ndax dama dama dama am doom te jigéen la comme moom te bu doon moomit damay bëgg rek ku ko jàppale tey lii mu def nii ni diise ci Pape noonu la diisee ci ñun ndax bu Pape jógee dem mu jàpp ko ne ko boo ma fi bàyyee du baax te dégg ngeen Pape ni ko waxee ci vidéo bi këram xat na góor mënta fanaan ak jigéen te mu doy waar lool xanaa ñuy ñaan rek borom rente tey bu ñu seetaanee vidéo bii. ñu japp ci ngir jëmi yalla te yalla rek tax moom mi mom fu mu man ma ngi ñaan dal suba mu baña fananat ci mbedd mi lool moom ñong koy ñaan képp ku sétane vidéo bi te am foko mëna fat wala loko mëna jappalé fu mu luyé di ko fayal ñong lay talal loxo te jëmi yalla rek tax ndax sama waji xamna xam bu ko mënon tay ji du ko fi baax waye nak bëdd yenn lu atal te ñun ñi and ak mom xamnañ né ne xolam bàyyiwu ko fi daa xamul nu muy def rek waaw ñun ñii suñ xol bàyyiwu ko fi waaye xamuñu nu ñuy def kon ñi ko mën a dimbali ñi nga xamante ne am na fu nu ko mën a def nañ ko jàppale te yàlla rek tax nañ ko jàppale te yàlla rek tax jërë ngeen jëf